asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi ak mbokk gambien yi déglu rajo defaral suñu bopp mbokk yi maa ngi ñëw di leen nuyu tey di 28 avril ku ci nekk ci sa tour ak euh, ci sa sant xanaa rek euh, di ñëw di terminer suñu série émission bi ñu tuddee whatsapp te nga xam ne wax dëgg yàlla waxoon nañ waxtaan nañ fi wax histoire bi WhatsApp fu mu jógee mais tamit mbokk yi ñu ñëw wax ci ci mbirum euh, WhatsApp lu tax nit ñi du fay doo fay soo koy utiliser ak euh, ci deuxième émission bi xam ngeen wax dëgg yàlla faram-fàcce naa ba explique leen wax WhatsApp nan lay gañee xaalis. muy mbir mu doy waar ñoom ñu ngi gañe xaalis ci ñun te ñun duñ jég duñ génne dërëm jox leen mu yónnee rek ne mbokk yi xam-xam euh, mbiru yoonu xam-xam moo jeexul te wax dëgg yàlla euh, xam-xam rek moo am njëriñ ci ci àddina bi mbokk yi donc loolu tax ma ñëw ne waaw ñun ñi taxawal WhatsApp ñu ngi lekk xaalis ci ñun lekk xaalis entre guillemets ñu ngi lekk xaalis ci ñun waaw ñun wax dëgg yàlla mbaa duñ mën jël outil boobu gën koo jëriñoo gën koo doxal gën koo amal njëriñ ndaxte nag euh, li ma gis ci communauté bi mooy comme dafa yomb rek comme fayul kenn fayul nit ñi nu leen neexee la ñuy utiliser WhatsApp te liñ koy utiliser mooy li gën a ñàkk solo ci WhatsApp maanaam yónnee message woote te wax dëgg yàlla mbokk yi euh, WhatsApp mu àndal dafa nekk njëriñ boo xam ne surtout nag ñun waa diaspora dama koy faral di wax ne yàlla moo ñu xéewal xéewal xéewali yàlla lañ am ci WhatsApp parce que ci première émission bi. xam ngeen maa ngi wax wax dëgg yàlla ci première émission bi xam nga maa ngi wax di fàttali vingt ans quinze ans ci ginnaaw téléphoné woon jokkalante woon ci biir diaspora bi ni mu méttee woon ak ni mu woon nga xam ne da nga doon rang yi temps ci cabine téléphonique yi waaye avant cabine téléphone yi poste téléphonique yi nekkoon ci biti nga xam ne ngoon su ngeen di oote da ngeen di ba nopp ça coûtait telement cher cinq euros soo ko dugalee sax doo wax. sa sa sa doo wax sa soxla mu gaaw jeex ñu jóge ci dem ci carte yi ngay gratter loolu yëpp mbokk yi mu nekkoon coono bu métti nag ci biir diaspora bi wax dëgg yàlla kon nag ñu war a xool euh, whatsapp njëriñ li nga xam ne euh, du war nañ ko jàppee comme or gis ko comme or ni ñuy toppatoo montre or <laughs> wala or ci boppam ni koy nit ñi di toppatoo loolu ñu war a toppatoo WhatsApp mais yomb na rek kenn du ci fay rek nit ñi di oote waxtu wu leen neex di yónnee ay vingt messages di di di yónnee di dugg ci groupe WhatsApp yi di ko yàq di envoyé ay vidéo yoo xam ne amul benn njëriñ ak li tax euh, groupe yooyu ñu créer ko muy mbekki nag muy mbokki nag mbir mu doy waar looloo tax mbokk yi wax dëgg yàlla tey ñu ñëw. pour indi leen waxtaan euh, ci njëriñi WhatsApp lan lañ ci mën a def xanaa rek mbokk yi may fàttalil ne euh, léegi ci école école école élémentaire yi euh, élémentaire élémentaire yi école yi école yu ndaw yi fi xale yi di jànge fii ci Italie am na ay maîtresse yu commencé sax utiliser boole WhatsApp ci njàng mi maanaam xale bi di ko corriger par travers WhatsApp groupe WhatsApp yi ñu créé nga am WhatsApp ci ay waajurum nag lay lay téléphone bi di nekk nga xam ne dafa mi exercice yii ñi nga xam ne dañoo tardé woon cours yi ndax feebar ñu leen ciy def rattrapage de cours de rattrapage muy wane rek ne wax dëgg yàlla système scolaire bi système d'enseignement bi WhatsApp daf cee dugg bu baax loolu su ngeen demee ci Google da ngeen gis ne am na eh, eh, yu ci bëri ñu ngi koy préparer di ko essayer mbokk yi yemul ci loolu rek WhatsApp wax dëgg yàlla dama ne quoi sax njàngalum alxuraan est-ce que waruñ mënuñ ci suñ communauté bi est-ce que waruñ cee jéem a xool nga xam ne xale bi du ñëw metre bi est-ce que du mën jàngale sax. alxuraan di euh, ustaas yi est-ce que mënuñ utiliser WhatsApp pour commencer si jàngale alxuraan suñu xale yi ñàkkul am na ñu ko essayé xam mus naa fi wax ne alliwo digital <laughs> maanaam euh, léegi alliwo waratul nekk ci kayit wala ne waratul nekk ci euh, ci ci bant waaye day nekk sous forme de tablette nga xam ne maître bi dina mën te xale yi wax dëgg yàlla dañoo xarañ ci mbirum digital mbirum computer loolu yëpp lu tax waruñ ko jéem a testé di ko ceytu di xool mbirum njàngum alxuraan lu jafe lu problème yu bëri am na ci suñ communauté bi daaw yëggoon nga ngeen la xewoon Santa Croce bañ téye fa eh, ustaas ya yàggul dara fii ci Milan boori Monza gis nga tamit ustaas ya nañ leen sonale woon ba téelewoo téewoo lañ ci kon nag muy question question bu may def est-ce que mënuñ jéem a ban xalaat boo mun a am recherche pour man war na am parce que su fekkee ne am na lu gën a compliqué techniquement ñu koy jàngale ci whatsapp ñàkkul ne wax dëgg yàlla peut-être alxuraan euh, suñ doom yi nga xam ne wax dëgg yàlla te mooy gën a yomb mooy gën yomb même sax léegi sax am na ay application yoo xam ne day am vidéo day am vidéo nga xam ne euh, euh, kiy jàngale non seulement day dégg ñi muy jàngal mi daf leen di gis te ñëpp xam nañ ne WhatsApp mën nga def tamit communique euh, euh, euh, vidéo muy wax dëgg yàlla njëriñ yoo xam ne man ci suma xalaat dëgg yàlla dañ ko war caytu gis ko xool ko soo demee tamit ci mbirum commerce te yàlla def na suñ suñ mbokk yu bari fii ci Italie commerce ambulant sénégalais yi ñoo ko yore ñoo ko dominer xam ngeen ne WhatsApp créé na sax beneen euh, version bu ñuy wax WhatsApp business te njaayum njaayum ambulante lal ci mbedd mi dafa mel ni presque jeex na tubaab yi xamatuñ ko ndaxte njaa jaay léegi ci internet la parce que euh, Amazon ñëpp xam nañ Amazon te Amazon fi mu nekk nii borom ki moom Amazon muy Jeff Bezos mooy nit ki ëpp alal fi mu nekk nii ci àddina te lépp Amazonom bi moo ko may. parce que commerce léegi lépp ci internet la da lay di may ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi jënd tey lu ci bëri ci ci internet nga koy commandé ñu courrier courrier yi indi la ko ba sa kër man benn jour sax maa ngi wax <laughs> di doxantu ci Milan Corso Buenos Aires ma ne soo wutul fii ak cinquante ans magasin yëpp dootuñ nekk magasin de magasin euh, de stockage lay nekk parce que courrier yi léegi. ñooy remplacer presque négocie kon nag pour dellu ci suñ xeet gi ci suñ communauté bi ñi nga xam ne ñu ngi jaay évidemment su may wax li jaay mooy lu régulier pas ay farce yu mel noonu comment lañ mën utiliser WhatsApp nga xam ne léegi seen clients yi ngeen am produit bu baax bu ngeen am bu bees muy produit ethnique wala produit euh, chinois yeeg wala produit italien yi lu ngeen ci am. ngeen ko mën ko yónnee euh, clients yi euh, te à travers WhatsApp business sax da nga mën di communiquer ci internet bi ci ci benn site ci ay site la mu yoo xam ne da nga mën di communiquer client bi wan ko produit bi su d'accordee sax mu mën la ko fay ci postpay yow nga dem livrer ko loolu yëpp ay yoon woo xam ne lañ war a doxal pour que wax dëgg yàlla xéewal gi ñu yàlla may muy WhatsApp ñu gën ko utiliser a bon escient mbokk yi euh, soo gisee ma ciy wax wax dëgg yàlla du ay waxantu parce que ñaari at ci ginnaaw comme ni euh, suñ benn mbokk bu ñuy wax euh, suñ benn rakk dëkk Calabria waxtu wi sax mu nga Touba am liggéey bu am njëriñ mu def ko ci WhatsApp surtout nag ci mbirum code de la route ndaxte nag wax dëgg yàlla code de la route man avant may xamanteeg Mohamed yàlla def na euh, nit ñu bëri dañ ma doon oo di jàmbat euh, surtout nag ay jigéen ne dañoo bëggal fi ñuy liggéey dafa sori bëggoon nañu wax dëgg yàlla mën a am permis mais à chaque fois suñ defee code de la route rek dañ leen di dax ñu ñu doon laaj ban solution ñoo ñoo ci am kon nag bi yàlla defee ma waxtaan ak Mouhamed mu wax ma wax dëgg yàlla initiative boobu mu commencé ko ñu ànd ci dugg ci euh, jàppale ko ci ba waxtu wi tey ñu bëri ci itali code de la route ci moom lañ ko jàngee te génnewuñ seen kër ji musuñ gisante sax ak Mohamed Seck dangay toog rek ci sa whatsapp ñu mu faram-fàccee la cours yi comme ni mu ko waxee nekkul ne daf lay jàngal whatsapp ci ci wolof déet maanaam làkkum italien bi moom ne lay euh, expliquer ci wolof mu ngi mel ni jàngal la italien technique en wolof lay def te loolu wax dëgg yàlla day dem ba nga xam ne nit ñi dañuy xam ba noppi nag mu defal la ay test defal la ay examen su euh, te yàlla def na résultat yu bëri ñu am ko ci mbokk yi donc looloo tax euh, ñun lépp lu ñuy wax rek dañoo bëgg am ay preuve yuñ ko teg looloo tax mbokk yi ñu invité tey donc suñ mbokk moomu muy Mouhamed Seck nekk nekk euh, dëkk yi mais fi mu nekk nii mu nga Touba daf ca demoon vacances xam naa ne mbas mi téye na ko fa waaye nag même Touba gam nekk mu ngi continuer di jàngale ay nit te loolu yëpp a travers WhatsApp la xanaa rek duñ def di lu dul dalal ko euh, di ko wax après wax dëgg yàlla mu faram fàcceen ñu wax situation bi dum toll asalaamaaleykum Mohamed. waaleykum salaam Baye Diouf ñu ngi ziar lu bari lu bari. Euh, di nuyu mboolem producteurs yi. Euh, mhm. rajo diaspora rajo. defaral suñu bopp waaw. waaw di leen nuyu lu bari di kontaan lool ci dalal bi ngeen ma dalal tey. exact defoon ngeen ko trois ans ci ginnaaw. Mhm. defaat ko defaat ko. te mhm. loolu koo gis xam ni lu baax rek moo la ci neex ndax yàlla dogal na mag bàyyi yu mos a yoo gisante. exact lu yéeme. loolu wax ni sax bu mu ne loolu mën a nekkee. exact mosuma gis Baye Diouf. occasion bi présenté wuut. exact. Euh, li nga wax tamit ci whatsapp li nga ci mm-hmm. développé mm-hmm. vraiment euh, yàgg ngaa wax yow mm-hmm. yàgg ngaa wax nit ñi woon lañu yoon wi mais daf mel ni suivre ñu la nag exact malheureusement loolu nag noonu loolu nag problème la ndax whatsapp opportunité yi bari na ci Sénégal gi rek daf mel ni waa Sénégal sax xam daf mel ni ñoo a gën a yeewu waa Italie ci whatsapp exact ndax danaa gis jigéen sama rakk yi ne fii ak sama sama jarbaat yi ñu am seen commerce bu ndaw boo xam ne ci whatsapp lañ koy defee dañuy toog seen kër di sëy seen sëy amul benn problème di jaay jënd ci whatsapp. est que. waaw di commande ba Chine muy ñëw ñu koy livrer te duñ génn seen kër loolu gis naa ko. est waaw kon li ngay wax nii. mi ngi mhm. fi mais nag gars yi ñëw suivre la euh, affaire bi wala dañuy dugg mu metti ñu daw. walaay bilaay te lépp looy gis. léegi la nga laaj ci situation waaw ci situation liggéey bi nga xam ne moom laay def muy condition d la code yàlla dogal na. code de la li ma ci dugaloon. waaw code de waaw code de li ma ci dugaloon. mooy damaa nekkoon calabria amoon liggéey boo xam ni su ma ci paree damay am temps bu large. Mm-hmm. temps boobu nag xaw ma lu ma ciy def. Mm-hmm. ay mbokk ñëw ci kër ga ne da bëgg temps bi nga am ni dañuy jàngal code bi. Mm-hmm. ba commencé di jàngal ñu ko di ko enregistré di ko joxe di ko jàllale loola dem ba egg fii. ñu daw exact waaye mbir moo bëgg mu réussir faw nga am persévérance day metti di neex di metti di neex mhm. maanaam unsur yusra unsur yusra lay def mhm. moo tax lu ñu bëgg lu ne rek war na am patience muy code bi muy leneen ak lu waaye mën a def na na am na jël bu jëlee engagement ba pare na xam ne dugg na ci loo xam ni euh, euh, man naa mën naa neex lool mën naa mhm. neex lool ba ngay gis ay mais yan saay bu metti mais bu tax à fait. waaw ñun nag ci loolu wax dëgg yàlla euh, ñu ngi rafetlu ni nga ko cont nga commencé parce que lépp lu bees rek euh, persévérance daf cee baax. di fàttali rek euh, <laughs> WhatsApp bi ñuy wax ki nga xam ne moo ko créé demoon na ba bëgg a découragé waaye xarit xaritam bi mu nekkaloon muy Brian Acton moo ko pousse rek. ne ko ne ko noppalekul ñaari weer rek te nga dellu si waat te waaw pour te dire rek te parce que day métti ci début bi day métti mais soo ci jàppee rek waaw ak patience rek dafa baax léegi Mouhamed donc ñu wax ne ah. fi mu nekk nii yow euh, yaa ngi dëkk Calabria ci ban ci ban dëkk encore nga dëkkaat ci Calabria fàttalil ma ko région waaw commune bi ma dëkk nag Davoli lañ koy wax Davoli exact exact waaw foofu ca Calabria ah, mais fi mu nekk fi mu nekk nii yaa ngi Touba ci dëkk bu sedd ba xanaa nga nga sànni ñu ñaan yi <laughs> ñaan bu jógee Touba rek. incha allah incha <laughs> mu nekk. Euh, effectivement ñaari at foog naa ñetti at sax lañ ci commencé waxtaan. ci ginnaaw ah, 2016 waaw. waaw deux mille dix sept deux mille dix sept deux mille dix huit waaw deux dix huit. deux mille waaw ñu ngi ci deux mille vingt man deux mille dix sept deux mille dix waaw deux mille dix sept la woon. Euh, ah. bi ndeysaan bi ñuy wax ci affaire yi code de bi nga wax ma ne am na ñoo ko jàngal euh, ñu nekk ñi sa dëkkandoor yi ñu def ko ba jàll. te lépp yaa ngi leen ko ah. jàngalee ci yaa ngi leen ko fram fàcceel ci wolof. dëgg yàlla mu nekkoon ah. nag idée bu ñu neex. Euh, te nga ne woon mën nga ko sax jàngalee WhatsApp. ñu ñu ñu siiwal ko comme ni nga ko waxee ñu bëri ah. depuis lors ba ba bërki dem rek am na ñu may oo di ma laaj sa numéro ma buggoon nag wax ah. dëgg yàlla euh, euh, parce que yaa ngi fàttaliku biñ ko njëkkee wax am na ñu doon wax ne ah. code de la route ko nit mën jàngalee ci wolof <laughs> parce que doo soo defi examen bi doo ko def ci wolof euh, italien lañ ko mën jàngale te kenn war a ko mën jàng mu amoon ay ay doute mais balaa ma lay bala ma lay dellu si ci ci noo koy jàngalee dama la bëgg a rek depuis lors ñaata nit ñoo bindu ci yow pour jàng code de la route ak nit ñi jàng waxtu wi ñu toll nii ñaata nit ñoo nekk ci groupe bi di jàng code code de la route ak bi nga commencé ba léegi ñaata nit ñoo jaar ci yow am examen code de la route route bi su dee am nga chiffre waaw. moom laa moom laa jàpp nii instant bi li nga xam ne jaar nañ ci yow passé am code bi. ci passé am code muy deux cent quatre vingt sept personnes. deux cent quatre vingt sept personnes jaar nañ. def cours bi am. waaw ci ñetti at te. ci ñetti at li nga xam ne moo ko jamono jiñ toll ni mu jamono confinement bi. waaw. dafa bari ñoo xam ne dañoo nekk en suspens fi ne dañoo waroon def examen. affaire bi téeléen ñu baree baree bari nga xam ne trois cent daa waroon teg instant bii nii waaw kon fi li nga xam ñi bindu na mhm, waaw na ñi bindu bari na mais nag li ma wax nag ci ci bi day amaat tamit ci affaire bi. Mhm. ndax tamit man bëggu may wax nit jox nit ay faux espoir damay wax li nga xam ne mooy dëgg. exact code bi yombut. exact ci ñu bari ci koo xam ne nag nee nga déggoo italien. waaw exact mais nag ku nangoo muñ nangoo sonn da am résultat du wax kenn mënoo ci ci sa whatsapp bi ci sa facebook exact bu ñëw ne man sama soxla su ku ma waxoon dana am permis du ko am du ma ko gëm doo ko gëm exact ndeysaan maa ngi fàttali ndax lu tax mu wax loolu mooy soxna si mënta liir mënta bind est waaw mais un an ferme jàng ko ci man mhm. daal di dem def examen jo jot ci ci code bi jot ci permis ñu mel ni moom ñu bari nag du moom dong exact mais loolu mu amee ci ñooñu am na ñoo xam ne dañuy allo allo allo waaw baal ma téléphone. ma ne amee ci ñi nga xam ne dañuy dañuy nangu. waaw. waaw. acca Mouhamed waaw nangoo sonn ci mbir mi. waaw loolu amee tamit ñoo xam ni même pas une semaine ñu ñu daw. ñu loolu dañu naan dafa dafa daa ñu découragé oui waaw ñooñu nag jàpp nañ ci bu baax te daal ñoo bàyyi kon heure bi passé woon li ñu am ni sax dañuy am lu ko ëpp foofu. est-ce euh, day métti mais boo doxee du nga ko fi xaar yu bari. tout à fait. donc loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko ci yooyu. waaw léegi Mohamed. donc rek. donc nga confirmer ñu ne deux cent quatre-vingt-sept personnes ci ñetti at yi def nañ cours bi ba jàll ko. ci ah, ah. à travers yow. te amul te amul ci kenn koo xam ne mus nga gisee ak ñoom programme te amul ci kenn koo xam ne mën nga gisee ak ñoom. Ah, xanaa ñi ma dëkkal. xanaa ñi ma dëkkal du mat du mat cinq pour cent du mat suñu cinq pour cent ñi nga xam ne ñoo ne Calabria. waaw mais ñeneen ñëpp ci yeneen dëkk yi. waaw Bergamo ci noor beeg yooyu yëpp am na ci. musuma gisante ak ñoom am na ñoo xam ne yow sax lañ xam. waaw am lañ xam. ci Baye Diouf lañ jaar. c' est mm. groupe bu defaral boo ci euh, salaat bi boo ci duggee dañu gis ñoo xam ni. Mm-hmm. ci man la un permis ñi ngi salaat dañ dégg émission bi dañu nekk ay témoin exact ñu ngi jéem def cours bi fi mu nekk. waaw ñu ngi def. cours waaw am na soo waa ju nekk. sax euh, moom avant affaire yi am la la jàll code bi. waaw loolu laa waaw léegi Mohamed. Euh, waaw euh, fi mu nekk nii yaa ngi Touba mais yaa ngi continuer di jox ku di jox di jàngale fa nga nekk ci Touba di ko jàngal ñu nekk waa itali n'est-ce pas. waaw. allo Mohamed dafa mel ni. def kon ne di jàngale ñu ngi joxe cours yi bu baax. Moussa Moussa Paxa waaw. waaw te nga ne ma ci confinement bi cours cours yi nit ñi dañoo gën a am jot ci ngay gën a jàngale sax ci cours yi. allo. ma ne. alo waaw Mohamed ba ah. bàyyil ma oyaat la dafa ah, mel ni dafa bàyyil ma oyaat la mel ni dafa coupé donc mbokk yi euh, bu leen euh, sori yéen a ngi euh, déglu rajo defaral suñu bopp tey nag wax dëgg yàlla ñu jeexaloon suñu émission boobu ñuy ñuy ooyee suñu émission boobu ñu ooyee jagleel ko WhatsApp te wax dëgg yàlla ci suñu biir communauté bi ñu am cas spécial koo xam ne ci mbirum whatsapp ci lay liggéeyee di ci jàngale eh, nit ñi kon nag mbokk yi xanaa rek eh, ñu déglu suñ xarit eh, Mouhamed Seck mu nga nekk ca Touba. dafa demoon vacances waaye fi mu nekk nii moom mu ngi jàngal doomu sénégalais yi fii nekk fii ci Italie mu ngi leen di jàngal code de la route à travers WhatsApp muy mbir mu doy waar ca même Touba googu nekk sax euh, bàyyi bàyyi ko waaw Mouhamed ñu dellu si waat donc foog naa ne ligne bi baax na léegi. Mhm. yaa ngi may bu baax. waaw maa ngi dégg bu baax a léegi Mouhamed donc euh, cent quatre-vingt-sept jàll nañ code de la route te lépp ci WhatsApp bi lañ ko jàngee nga leen koy jàngale mën ngaa ñoo wax WhatsApp ban njëriñ la la amal ci <laughs> ci ci liggéey bi. ak nan nga koy utiliser pour jàngal nit ñi ci code de la waaw WhatsApp de euh, Baye Diouf moyen la boo xam ne daf may permettre ma mën a connect ko maanaam communiquer ak nit ñi. Mm-hmm. di leen yónnee ak di recevoir ci ñoom. d'accord. Euh, du WhatsApp rek nag euh, moom laay utiliser mais nag moom moo ci gën a fës. mooy mooy base bi exact. waaw liggéey bi may def. bu ko liggéey ba pare. Mhm. laa koy jaarale pour transmettre ko. ok léegi léegi lan lan ngeen di di tra ay vidéo nga leen di transmettre ay cours. ay audio ay photo ok euh, bàyyiwuma dara ay appel dana ma woote di wax yooyu te fépp fu fépp fépp fu nit ki nekk ci Italie da koy da nga ko koy mën defal. ci àdduna fépp fu nekk ci àddina bi euh, léegi mu am. waaw xam ne Italie lañ dëkk xam ne Italie lañ nekkoon waaye dañ faa jóge waaw acca. waaw dañ faa jóge mais bu ñuy def examen patente Italie lañ koy defee. moo tax fu ñu mën a nekk mën nañoo jàng ba mën a def examen soog ñoo def candidat libre Italie. d'accord te candidat libre bi yow yaa leen di yow yaa leen di inscrire yaa leen di dimbale ñu bindu defi candidat libre. waaw dama leen dama leen woon yoon wi rek xam nga dëkk bu nekk nit ku ne am nga droit def ko. mais nag mm. dañ dul xam fu ñuy jaar. exact. waaw expliquer leen ba ñu xam fu ñuy jaar rek. ñu dem defi candidat libre. ñu dem defi candidat libre waaw. d'accord euh, Mohamed euh, léegi ñetti at a ngi nii foog naa deux mille dix deux la commencé woon euh, yan développement yu possible moo mun a am ci ci mbirum mi parce que yow ma fàttali ne. code de la route bi rek ngay jàngale doo jàngale dawal oto bi dawal oto bi moom il faut nit ñi dem en général ci ci auto école yi n'est-ce ah. pas. Hmm? auto école waaw loolu ah. euh, xanaa rek ñu fàttalil ne euh, WhatsApp ci parce que suma intervention bi mu ngi dugg ci mbirum euh, WhatsApp ñu ngi ko dugal ci waxtaani WhatsApp. pour wax njëriñ li nga xam ne mën na amal xeet yi njëriñ yi nga xam ne maa ngi wax bay wax sax euh, ne alxuraan sax war nañ ko mën jàngale maintenant ci ci ci ci à travers WhatsApp euh, ma bëggoon laaj sa xelaat xelaat yaa ngi ci dëkk bu sell ba xaw ma ndax am na tentative parce que xam nga ñun fii problème yi booy ut daara fii dafa compliqué parce que il faut nga am autorisation te itam Euh, dañ lay enquête di la topp est-ce que yaakaaroon ne war na am luñ ci mën a yow mi nga xam ne yaa ngi jàngale code de la route ci WhatsApp est-ce que yaakaaroon lu mel ni euh, alxuraan nit mën na ko jàngale à travers WhatsApp. waaw manees na ko mën a jàngale à WhatsApp bu dee alxuraan ak yu baree bari mm-hmm. euh, confinement bi rek wane na ko ndax ñu bare am naa man sama benn xarit Ibrahima Diop xam nga ko mooy président ASECO bi waaw moom. moom day jàngale mais jamono yi par whatsapp wala par skype par réseaux sociaux yi daal ci day jàngale moom. lan lay jàngale ci jamono confinement ci école tubaab yi day. day jàngale. waaw école tubaab professeur boobu. exact waaw mais instant bi këram lay depuis këram lay joxe cours yi. tout à fait. waaw léegi nag loolu rek misaal la. loolu misaal la exact. waaw waaw léegi jàngale alxuraan ci par whatsapp. non dana nekk lu complexe parce que lu ñuy war a liggéey la lu ñu war a xalaat bu baax la. tout à fait mais lu mën a nekk la. recherche waaw loo loo gis comme ni nga ko waxee rek. njëlbeen bi day métti. mais suñ ko caytoo bu baax rek dinañ ci gis solution. Hmm. waaw. d'accord mais loolu toujours damay préférer man mm-hmm. mm-hmm. bëgg ñoom seen bopp acteurs yi ñu ciy ñu ciy wax ñoom. ñu tout à fait ñu koy. cay ñu koy caytu di di di xool tamit li nga wax noonu ñu ñu dugg di xool euh, benn possibilité lañ ci mën a am. tout à fait léegi Mohamed yow saa yu ma la invité su ma paree nit ñi dañ may sonal di ma laaj sa numéro de téléphone ñu bàyyi la rek nga terminer joxe sa numéro de téléphone nga expliquer euh, nit ñi ku la ci bugg a contacter nan lay def ak pour nga expliquer ko te suñ mbokk yi ñoom comme ni ma wax parfois dañuy abuser ci WhatsApp da nga gis ku téeméeri nit yu la ci oo toujours dañuy laajte rek. te wax dëgg yàlla jot gi du maye toujours nga mën toog di tontu mais rek nga joxe sa numéro pour wax fi nga xam ne nit ñi ku la ci soxla ci la lay oo. Hmm. waaw man de benn numéro WhatsApp rek la ma ñëpp xamee. Hmm. Euh, yi ma bi ma mujj am mooy 389 05 euh, ko ci baamtuwaat ko ci <laughs> ko ci français allo. waaw. 05. 28. 744. ok mooy numéro bi. mooy numéro bi. ku ci ku ci soxla. waaw di wax ni ki ma ci soxla daf may bàyyi message rek incha allah bu ma noppee ci liggéey bi danaa koo contacter ndax xam nga rek liggéey yi ñuy def enregistrement la ak vocal yooyu mënut a ànd ak appel. exact tout à fait. tout à fait. léegi nag ki nga xam ne dafa def un message bàyyi ko lu mu yàgg-yàgg danañ ko lire tontu ko jox ko explication. bu fekkee dañoo laaj lu ñu xam. Mhm. dañ ko joxe ay leeral yoo xamante ni moom vraiment dana satisfaire. ak condition xanaa ma lay laaj Mohamed fi nekk nii yaa ngi Touba ñaata temps ngay ngay def ci njàngale code de la route bi fi mu nekk nii pour suñ mbokk yi nekk ci ñaata temps par jour. man nag Baye Diouf. Mhm. ñun nag daanaka dañoo sacrifier suñ suñ bopp rek ci code bi. ndax amuñ amuñ amuñ euh, amuñ amuñ arrêt ba ngoon ci code bi la ne. est-ce que ba dimanche est-ce que mooy nga nekk Touba ak soo ñëwee. kala nekkuma ci yeneen activité waaw yëpp daara laa ko def xam nga defuma ko loo xam ni comme. Euh, business li gën a ci yenn yenn liggéey business yi nga xam ne dañ koy organiser de telle sorte que day académique ba ëpp ñu defuñ defuñ ko noonu. Mm-hmm. ñun daal lañ xam mooy feeg nit a nit a ngi bëgg jàng ñi ngi fii di ko jàngal. Mm-hmm. Euh, bu ñu amee ay ay yitte yu yu jàmp nag daal di jégalu dem ci yitte yooyu dox. Mm-hmm. waaw noonu la ñuy doxee. d'accord. waaw Mohamed merci beaucoup ñu bàyyi la nga tàggoog auditeurs yi ba ba beneen yoon comme joxe seen numéro ñoom ñoom ku la ci soxla mën na mën la cee yónnee message kon nag mbokk yi bu leen oote yónnee na leen message ndax nag wax dëgg yàlla. comme comme ni ñu koy waxee mbirum kuy liggéeyee téléphone ak WhatsApp nga ko ci oo day yàq liggéeyam kon nag Mohamed ñu bàyyi la rek nga tàggoo ba ba beneen yoon di ñaanal jàmm. di ñaanal waa Touba yëpp yu nekk foofu jàmm ak Sénégal. Hmm. waaw di sant di la sant yow Baye Diouf bu baax di gis taxawaay bi nga defal euh, du du Mohamed rek waaye communauté sénégalaise bi. ñu bare bare bu ñu yeewoo wala bu ñu xamee yoon yaa lañ ci teg. loolu moom ñu ngi la ci remercier bu baax di sant tamit ñi nga xam ne ñu ngi leen nangoo topp ci lool mm-hmm. waaw parce que vraiment du c'est pas évident dafa metti dafa metti waaye di la ñaanal rek yàlla defal la li nga bëgg lépp defal la ko defal lay xew yu bare bare bari. amiin yaa rabbi waaw yi tamit ñi doon déglu émission bi. jërëjëf Mohamed jërëjëf euh, jërëjëf euh, mbokki rajo defaral suñu bopp kon nag li wax yàlla yéen a ko déggandoor euh, deux cent quatre-vingt-sept ci ñaari at ñetti at jaar nañ ci Mohamed Seck def ko dollar ba am ko a dëgg yàlla muy mbir mu rafet loo xam ne te lépp nag ci njàngum boo xam ne mu ngi jaar ci whatsapp ak réseaux sociaux yi kon nag li may wax Euh, dañ cee am preuve waaye nag mbir doo ko jëlee ni mu ñëwee rek nga koy jëlee noonu da nga ciy sonn pour adapter ko ba mu xam yoon wi nga xam ne moom parce que lu ñun avec internet ku ci nekk outil boo xam ne ku ci nekk ni nga koy utiliser da nga ko war a ma kontaan trop nag ba ma yëgee ne ay jigéen ñu ngay def commerce ca Sénégal te diggante WhatsApp te duñ bouger fi ñu jógee muy wax dëgg yàlla mbir mu rafet doo xam ne ñu nit mbokk yi ñun ci réew mu développé gën a développé téeméer yoon Sénégal dëgg yàlla war nañ caytu mbirum informatique mbirum réseaux sociaux mu nekk ay ponk liggéey yoo xam ne dañ ko way taxawal bañ koo jël ni ñu ko joxee rek mais ñu jëm ko adapté ñun ci ni ni mu gënee ci ñun foo naa ne lii mooy xéewal bi lii mooy xéewal la nag WhatsApp xéewal bu ñu yàlla wàcceel ñun immigré yi waaw parce que nga nekk sa kër tous les jours nga mën a dégg sa soxna même la muy togg sax sootul su la neexee nga xeeñtu ko <laughs> ci ci ci misaal wax dëgg yàlla loolu mbokk yi euh, lu xewal la ñun ñu nekk ci bitim réew te na xéwal boobu dañ ko war gën a gaaw a toppatoo kon nag mbokk yi lii lañ leen indiloon tey ci rajo defaral suñu bopp muy ñetti émission yoo xam ne bu ci njëkkee ci whatsapp euh, fu juddoo ak nu mu juddoo whatsapp yan ñi ko yoree ñoom nuñ ci amee xaalis tey mbokk yi ñun doomu Sénégal yi doomu Gambien yi nekk fii ci Italie nan lañ mën jë jëriñoo WhatsApp ba mu nekk lu jëriñ ci jëriñ bañ koo def rek yëfi défoulement yëfi wéetaay di ci wax n'importe quoi n'importe quand euh, mbirum yàlla dañ ko war toppatoo bu baax parce que nag wax dëgg yàlla ci lu leer nañ euh, ku fekkee euh, année. Eh, fii ci bitim réew nga nekkoon fi année deux mille ba deux mille cinq ba deux mille sept da nga xam ne wax dëgg yàlla changement am na par rapport ak euh, nañ doon jokkalante ak suñu réew ak suñu mbokk kon nag mbokk yi lii mooy rajo defaral suñu bopp seen xarit Baye Diouf depuis Milan di la ñaanal jàmm ba beneen yoon jërëjëf. Vicini all'Italia, agli italiani, vicini a te. Da Carrefour abbiamo bloccato i prezzi di oltre prodotti di uso quotidiano per giorni fino al maggio. E per aiutarti ancora di più, ti proponiamo tante offerte nel nostro volantino digitale su volantini.carrefour.it. Carrefour, tutti meritiamo il meglio, oggi ancora di più.